الحمد لله الحمد لله وشكر لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلوات الله وسلامه على خير خلق الله سيدنا محمد مظهر ذات الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى الله خاصة الصديق الأكبر والفاروق والسنورين وباب مدينة العلم حق قدره ومقدار العظيم mbooloo mi ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu ruuxu jotaay sirru jotaay bi mëdëti jotaay bi tëbbi jotaay muy Sayid Abdourahim ñu ngi lay nuyu bu baax di la teg sa palaasu pap alwaladu sirru abi doom mooy mbootu baayam baay bu ko waxaan sama baay maalaaj yi danaan wax naan donc dañu wax neen mbaa du kon moma kon yow yari bay si jotay ñu ngi lay nayu ñu ngi lay hormal ñu ngi lay tek ci see subaay ñu ngi lay wacc sa way bu baax dila xore bay si jotay turla bu yimi bu la bay tuddé ci tur yonent yàlla muhammad rahim rahman olma saahir yëpp xam nañ ne yalla mo ci mindi fi yëpp ci adina way rahim ku ko neex la ci àlaaxira kon rahim dafa dëppoo ak Maulana Cheikh Ibrahim parce que alaxira bii nit ñi xaar bi bàyyi ñëwee nañ fa ñun xaaratuñ alaxira xaaratuñ aljana namatuñ dara biñ dajee bàyyi nañ namatu dara ñu ngi lay ndokkeel bu baax di nuyu conférencier bi ñun dañu sànni ay kàddu yu pare rek moo nekk koo xam ne dëgg-dëgg bu ko neexee yëkkati loxoom kuñ la tuddee Seydi Ahmed Daam Ibrahim Niass ah kon Cissé ñu ngi lay nuyu ñu lay ndokkeel ñu ngi lay xormaal jotaay bi sa jotaay la kaddu yi sa kaddu ñun kaddu yi ñu fi wax bu tilimee boo ñëwee sa kaw dëgg-dëgg ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi nuyu ah Seydina Aliou lay nuyu bu baax di la ndokkeel ñu ngi nuyu tamit mooy Cheikh Ibrahim Fall ñu koy nuyu bu baax ñu ngi nuyu muqaddam Seydi Aliou Ndiaye. nga xam ne ku ko xam xam ko ci imam Hassan Cissé waaye xam ko ci xam-xam xam ko ci liggéeyam bàyyi ci Dakar waaye ñu ngi nuyu le tiktoker de la. di leen ndokkeel baax seen tur bi nee na gis ngeen nit bu bëggee dara waru ko nëbb bàyyi bi bëggee yéen itam mu nëbb dafa toog ba mu yàgg mu tàmboo buntam nee na ala fashhadu anni uhibbu muhammadan wa abghadu kufranan ka naarin talahhabu

ci loxo ay ndaw yoo xam ne tey mënoon nañ jublu leneen waaye njëriñu kaane lañ jubluwaay parce que xam nañ ne ku jublu baay jublu nga yow ku jublu baay jublu nga yurun ku jublu baay jublu nga Cheikh Tidiane ku jublu baay jublu nga ñëpp kon jublu mbir mi boo jublu baay rek am nga lépp Mouhamadou Bichri sëti yurun ca Mouhamad bi mu nekkee sëti yurun bi mu ñëwee ba ci baay dana ko wa in sharaqa al aqwaamu yawman wa qarrabu fa sayri ilaykum laa ila sharaqi wal xarit mu ne bàyyi gis naa ne am na ñoo xam ne dañoo daw jëm penku ci yonent la moom am na ñoo xam ne dañoo daw jëm soowu ci sax yaa ñun demoon ci yonent demoon ci sax yaa ci yow lañ ñëw parce que xam ne bu ñëwee ci bàyyi ñëw na ci yonent ñëw na ci sax yaa te kii wax lii sëñ yonent Yàlla Muhammad la moo tax sëriñ bi ngeen àndat sëriñ la boo xam ne du sëriñ comme sëriñ si Ibou Diouf nee na am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am nanu leen yiiru buxóoru lan waari moo di siriyaara amma am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am nanu leen yiiru buxóoru lan waari moo di siriyaara amma am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am nanu leen yiiru buxóoru lan waari moo di siriyaara amma am ngeen sëriñ waaye xamu leen ko am nanu leen yiiru بذور الانوار more.

fi hayati eh yéen ñu leen Ibrahima Sall mbirum mi dana tas xaar nañ tuuti eh yéen ñu leen Ibrahima Sall ku ànd ak moom da ngay dellu gannaaw bàyyi ne laa altaqi fi hayati sunnatan laa altaqi fi hayatin sunnatan ما بكيان برهم الله باي شيد أمن الله برهم الله باي ndeysaan ndeysaan conférence bi sëriñ bi ñuy dugg ndeysaan suñu bëggee Cheikh Ibrahima rek waaye dafa xool Cheikh Cheikh naan ara xubba Cheikhi Ahmad al Qadri raatili وليس هواء في الفؤاد بزايل فكبدي بحب شيخ أرى وأدرع فسرت سفيها دائما غير عادل سكرت بغمر الشوق دون التقرب يونان بشوق الشيخ سكن لرائي فكم طالما نال المريد فكم طالما نال المريد بشوق لرائي عين وفقها المنازل أرى غير حب الشيخ حالا مصنعا أرى عازل في حبي غير عازل فأنا قلقت ببال الشيخ من أولين من دون انفراقنا على وجه أرض أو زمن دون فاسد فوفنا فصرت أرى عيا ولست بلام ولا ناتر سيد فسسير مخاطر فسسوق فسسوق قاتل فسسوق قاتل moo tax mu ne xubbu Cheikh Tidiane xarrata xubbu Seydi Tidiane déedéet déedéet ñoo lànk ñoo lang langal duñ lekk làkk bu sedd meew sëriñ Ba ala kulli ñu ngi sant yàlla ñu ngi ndokkeel لا إله إلا الله بيت بيت لا إله إلا الله واي فايق بعد أمري أمر رجل أمر رجل أمر تبت سيدنا ما فايق من من أنا ما بايد بيت ما أنا ما أنا كورجل ما أنا كورناي ما أنا كورتاير سيدنا بيوتو نيجي جيكلو واو Abdourahim nee naa ko jottali benn benn yóbbante mhm. ñii ñoo tax muy wax ak ñeneen ñu ñuy seetaan ak borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñu ngi préparé pour jàmm julli leen julli leen jeeye ba pare nee na julli leen jeeye ba pare muy xamal ñiy toog ne comme fekk yi maalik ni ñun xaar yoo xam kuy xaar loo xam ne yaa ngi ciy xaar julli yaa ngi ci julli. nee na kuy xaar julli yonent bi nee na fekk yéen a ngi xaar julli yéen a ngi julli. ala kulli ñu ngi leen dokkeel sëriñ bi yàmmat. taxawee nga sa place bàyyi. ñu ngi leen di dokkeel ne tëj pëgër. ñun nag ñu tuuti leen pour représenter ki ñu julli muy Maolana Sang Barham. mu ngi leen di bëgg. mu ngi ànd ak yéen ci tolluwaay. nee na Afaan yi waxoon li misli laa fa yàlla lu mel nii.

may ma may ma may ma may ma Ibou su ma si duggee damay dem. damay dem. damay dem rek su ma duggee ci Ibou moom damay dem rek. te bëgguma dem. kon sëriñ bi ñu ngi tuub ñu ngi jégalu ñun ay ndongo lañ li ñu xamoon ci daara gi oustaz bi da jàngal élève bi mu ñëw tari ba amee yàq bu defar oustaz arab yi ñun ñuy def oustaz daara yi ñun ñuy def yéenay suñ suñ balaa marka suñ sëriñ ngeen di doon ñun seen jaam la ñuy doon. bu la neexee nga yëkkati sa loxo tiitaru ne imam Xasan mooy saa baay imam Xasan Siise kooku kooku kooku kooku kooku taaru baay la kooku liggéey la baay kooku ba léegi boo ko xoolee daj baay boo ko xoolee yëg baay moo tax bu la neexee tiitaru bu la neexee daaw bu la neexee sikki Dakar kan Siise ñu ngi leen ndokkeel ñas ñu ngi tuub wa axir daawaana jërëjëf Cheikh Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatulah